Mamadou Mamour Diallo am na xibaar bu ñuy jottali te li ci neex mooy am na comédie bu am solo bu am ci biir looloo tax sax ñu jël affaire bi kon ñu seeti ko. Mamadou Mamour Diallo. Mamadou Mamadou Mamour Diallo debbo argay min ko gorko Mamadou Mamour Diallo jere Mamadou suma debbo la man gorkom la ma nekk doomu Louga Mamadou Mamour Diallo bii suma debbo la man gorkom la debbo mi yiɗima de de jarama Mamadou Mamour Diallo e mbiɗa haala noon jogorel jabarel jafa ñaafa nde tama de kewo jigo de kewo yiciri biɓe ala e seeɗa guelleje mbaɗe humo ko kaaɗi Eh, mu mo gattudama mu gattudama wakkala yoɓata wakkala ñamlo eyi aɗa waɗi président makky sall dafana dafay ñoow luuga pour def projet ana eh, assainissement bu Louga bi nga xam ne président moo ko digee woon maanaam canalisation ak buuj buujal yi doon am fii ci canal gi dara dootul cag léppay def léegi loolu ñu wax leen ne président président la du président du kenn ku président de la république éclairage bii nga xam ne mooy yoon yi lëndëmoon te amoon ay lëndëm lëndëm président dafa ñëw pour déclencher éclarage public man mii nga ne maay Mamadou Mamour Diallo kii suma debbo la suma jabar la dimbali président mooy fexe ci sa doole ak sa kattan si sa poche nga jàppale militant yi waaye askan wi looloo waral 156 familles yoo xam ne takawu naa leen ci mutuelle bourse familiale bi ñu takaw pour faju kooku Mamour Diallo moo ko def ey eh, suma jabar nee na xanaa gisoo jigéen Louga yi yi nekk ci gox goxaani àll yi dañoo sonn te dëpp bi ba loxo yi xotteeku mooñ bi ba li nga xam ne mooy tànk yi ak baaraam yi daa dee wur moo tax mu jog ni projet mil mbay bu fekkee da ngay caakaan nga dem sa mu ne de miil yi jàkka yi jumaa yi yooyu yëpp ñu ngi koy def suñu doole ñun ñun këccoowuñu Louga de président nañuy këccoo ku la may moo lay dolli ku la dolli moo lay dooleel ñi nga xam ne ñoo ñëwoon sama meeting bi ma organisé woon le 15 janvier ñëpp nee naa leen alhamdulilah gërëm naa leen min ko Mamour Diallo o oh, kii suma debbo man may gorkom président day ñëw ku am pison ñi ni maa ku am picc ñëwal ma jënd. ku am wote ñëwal ma jënd. ku am béy ñëwal ma jënd. ku am fas ñëwal ma jënd. ku am nag ñëwal ma jënd. dama ne ku am doom di ko jaay sax bu ñëwee ma jënd. lii ma président dénk kuñ ko dénkoon bu la ko jokkee fu mu takaw nga takawal ko ay mbootaay kii suma debbo la eh, man maay gorko Mamadou Mamour xam ne gën lekk soos war a fiiriir war bulet war a spaghetti laaxu soow war a simb Dakar war a ñeleñ sef war a rooti pombiteer war a buuri gaari buuri gaari mooy cere Louga bu ñu def soosu lingeer ak soow boo xam ne dañ ko dëbb ak dugub mooy buuri gaari président keroog boo tegee sa tànk Louga loo loo jéggi kii suma debbo la man maay gorkam yéen waa Fatick séeréer yónni naa sama mbokk yi ñu jëndal ma juróom ñaari junni jaamu séeréer bëgg naa teral président ba bu ñëwee sax gis ne léegi haal pulaar am nañu ay jaam yoo xam ne dañu koy teer kii suma la man maay gorkam Mamadou Mamour Diallo Mamadou Mamour Diallo képp koo yaa ngi mbubboo loo xam ne président moo ko war a def nga ne yaa koy def yaa ngi ndax sa bopp projet assainissement bi président moo ko taxawal moo koy inauguré éclairage public président moo ko taal moo koy inauguré min ko Mamadou Mamour Diallo kii suma debbo la man maay gorkom ey ey ey ey kii suma debbo beñe dugub soow cere xar nag picc pitax gëlëm xar beñe mën mayonnaise mono pomme banana coco orange soccu petit cola ñawal